mbokk téléspectateurs yi ñi safoo di seetaan WF1 TV la chaîne des femmes ñu leen di nuyu di leen jaajëfal ci seen teewlu tey ngeen ñëw ngir seetaan seen émission la loupe mi def seen euh, actualité de la quinzaine maanaam tënku xibaar yi nga xam ne moo jot a ci ñaari semaines yi jàll tey nag ñu war a waxtaanee li nga xamante ne moo di taxawaayu jigéen ñi ci langum politique bi naka nañuy def ngir jiite waaye itam bu ñu jiitee naka nañu def ngir euh, sax fa loolu tamit euh, bokk na ci li ñuy waxtaanee recrudescence des violences faites aux femmes maanaam mitital bi di métital jigéen ñi yenn saa yi rey di ci topp mu bari lool ci réew mi war nañ ko waxtaanee itam li nga xam ne moo di audition bu Ousmane Sonko euh, juge bi déglu na ko lan lañ ci jëlee ak euh, ban jàngat lañ ci amee ci population sénégalaise bi seen mat ak seen euh, seen dayoo fan la toll ci ci loolu noonu donc ma ciy dalal ki nga xamante ne moo di bu baax mu nekk journaliste di chroniqueur Seynabou salaamaaleykum. salaamaaleykum Magui maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sama naatango yi bi. en même temps maa ngi nuyu képp ku ñu seetaan à travers euh, Women Post TV. merci beaucoup maa ngi dalal itam ki nga xamante ne mooy madame le maire de la commune de Cambérine mu nekk euh, madame Samb madame Samb salaamaaleykum. waaleykum salaam Maguette maa ngi lay fay di nuyu sama euh, sœurs yi nga xam ne ñoo ngi nekk fii ci plateau bi di nuyu aussi waa Women First TV. Mm, ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ci ci wuy si bi ñu bàyyi la peut-être nga présenter wu wax un peu ci yow yaay kan. waaw man maa ngi tudd Nafi Samb madame seen nekk benn institutrice nekk première maire euh, première adjointe au maire de la commune de Cambérène euh, ma nekk fa tim bokkatim si comité di ni ñuy waxe comité directeur bi nga xam ne mooy euh, équipe fanion bi mooy ASC Cambérène nekk fa aussi secrétaire administratif bi nga xam ne mooy conseil de quartier bi aussi ma nekk koo xam ne maa ngi débuté samay pas ci politique ci parti socialiste bi yàlla dogalee ba xaajaloo bi ak xalifa ma dem ànd ak xalifa Sall nekk fa coordonnatrice des femmes de taxawu sa Cambérène. Mm, kon loolu am na am na solo jaajaa bu am solo. madame Thiam itam euh, dañ koo dalal moom tamit ci euh, plateau bi mu nekk communicante waaye itam am yeneen yi euh, liggéey yoo xamante ne mu ngi ciy liggéey lu am solo madame Thiam. salaamaaleykum. waaw ma jigéen euh, maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sama sœur mu ma bokkal plateau bi di mm-hmm. kontaan ci euh, invitation bi di nuyu télé téléspectateur Women First TV euh, maa ngi leen di nuyu bu baax di wax ne man Aïssatou Thiam lañ may wax. Mm-hmm. maa ngi maanaam bokk ci pàcc yu bari nekk ci communication relation publique am association yoo xam ne maa ngi ciy yëngu actuellement. ñu tënkee ko noonu rek ba ñu gën a avancé incha allah. jërëjëf euh, madame Thiam euh, di tënk rek euh, ci loo xamante ne dañ koo seetlu mu nekk ni Aminata Touré benn at la def ci nguuru Sénégal maanaam bi mu nekkee premier ministre ñu seetlu itam ne Liz Truss moom tamit 44 jours rek la am ci fonction wu premier am mu daal di démissionné ñu seetlu itam ni Hillary Clinton ca États-Unis mu ngi jéem a nekk président boobu léegi yàgg na tey Sénégal boo ne Aminata Touré mën na nekk présidente ñu bëri dinañ ne ah jigéen de ndaxam dina jiite ndagam dina ko mën question yi dañuy daal di euh, bëri ci noonu ñu def taxaw seetlu ne jigéenu Sénégal seen liggéey ci politique rëy na waaye néew na lu ñuy am ay fonction yu mag a mag a mag ba pare néew na itam suñ ko amee lañ fay euh, luñ fay durer. ci noonu euh, lan moo waral problème boobu noonu lan mooy problème bi ba jigéen ñi bu ñu jiitee itam duñ fa yàgg madame le maire. damay ñëwaat rek nen ko waxee woon ci tubaab que jigéen ñi ñu ngi def benn avancée ci politique. Mm-hmm. donc li wax dafa xaw a xaajaloo ci diggante bi. Mm-hmm. Euh, bu nu ñëwee ci le cas de Aminata mm-hmm. euh, que dafa def at ci euh, kii bi ci jiite. gouvernement bi. ñu gis ne dafa gàtt trop. donc foofu dañuy wax ne. ñun ci mentalité yi la. jigéen ñi difficulté yi ñuy rencontrer fii au Sénégal. keneen du ko par partout par parfois ce pays européen. Mm-hmm. quelques rares exceptions. waaw mm-hmm. mais fii au Sénégal jigéen du jiite daf ñu sonal. waa mm-hmm. parce que tradition bi diine ji yooyu yëpp dafay ñëw di jouer maintenant nag euh, jigéen ñi ñu ngi def percée. percée bi mooy avec parité bi ñu bari accédé nan ci instance yi ci yenn kii instance yi ñu ngi ci bu fekkee commune yi. ñun ñi si bëri appliqué nañ parité bi. Mm-hmm. à quelques rares exceptions. Mm-hmm. boo demee assemblée aussi euh, appliqué nañ ko parité bi donc perte jigéen ñi foofu gis nañ ko mais auparavant aussi ni ma ko waxee woon sànq gisoon nañ fi aram jigéen donc waruñu am benn complexe euh, la reine d'Angleterre à 25 ans defe naa si la si la si la si la si la accédé woon. Mm-hmm. waaw 78 ans waaw à 25 ans si je pense bien defe naa âge boobu. Mm-hmm. ba 77 ans. donc moom it gis nañ ni mu ni mu tëye pouvoir kooku tamit mm-hmm. exception la. Mm-hmm. ak tant d'autres ak temps d'autres yoo xam ne mën nañ jël exemple si ñoom. mais nag jigéen ñun suñu pro problème premier suñu problème premier. mooy ñun jigéen. ñun jigéen ñi ñooy xeexante suñu bopp. pourquoi pas man ba pourquoi pas man. Euh, taakale bi dafa bari si ñun si jigéen ñi. waaw. Euh, boo muy si politique bi muy si développement bi parce que mën naa wax ne dangay ngay jéggi benn tànk rek jóge politique dem développement mm-hmm. waaw fu xëccoo bi ak ñiiroo bi dafa bari si ñun ba nga xam ne góor ñi dañuy def perse boo defee percé si si ba egsi fa góor ñi egsi it mm-hmm. góor ñi bëgguñu ku ku leen tollale je pense bien que ñoom lu ñuy wax ne mm-hmm. gëm nañ émancipation <coughs> gëm nañ parité gëm nañ leneen loolu loolu dafa des parce que ñoom ba léegi mm-hmm. gëmuñu jigéen bu tolloox ñoom euh, kii nu mu tuddati dayo waaw est-ce que est-ce que ci biir euh, ci biir parti parfois est-ce que dañuy am problème pour bu ñu bëggee euh, jël jigéen teg ko ci benn fonction boo xamante ne day xaw a jiite ay góor est-ce que dañuy am problème parce que lépp tamit ci vote lay jaarlee est-ce que jigéen ñi dañuy am ay problème pour que góor ñi votel leen. xam nga xam nga fii parti ni muy demee loolu du si gaaw a feeñ parce que ku si nekk dafa yor instance am. Mm-hmm. dafay am instance jigéen ñi am instance góor ñu ngi daje ji au sommet. mooy mooy mooy le président du parti wala le secrétaire général du parti. Mm-hmm. mais boo xoolee fii Sénégal kii rek euh, quelque rek laa fi gis ñu nekk présidente de parti. Mm-hmm. muy euh, Aminata Mbengue Ndiaye c'est après. après Tanor. Aminata Touré avec son son mouvement mu ñëw. Mm-hmm. ak je pense Nafissatou Diop. Nafissatou Diop moom aussi ñëw na ak mouvement am ak Aïda Mbodj. ñoom ñoo laa laa fi gis nga xam ne. ñu ngi persister ci l'endroit politique bi. mais problème bi nag mooy. confiance bi nga xam ne dafa des pour ñu jox ko jigéen gi mooy damay ñëw toujours ci cadre tradition bi psychologiquement Sénégal ñoo pareegul pour jiital jigéen. waa dañ koy dañ koy seetlu ah, saa su ne dañ naan est-ce que dina ko mën jigéen ñi moom jigéen ñi moom euh, yow mi nekk sur le terrain da ngay da ngay gis ne jigéen ñi dañ leen di gën a soxla ci cadre mobilisation ci cadre organisation mm-hmm. donc lan moo waral nit ñi mënuñoo am confiance ci ñoom pour jox leen ay ay ay kii ay est-ce que nekkoon ni tamit euh, jigéen ñi ñoo nangu te taxaw jiite parce que aussi comme ni mu ko kii waxee léegi ñun jigéen ñi si bopp ñooy xeexante suñu biir dañuy gis fii suñu benn moroomu jigéen ma gis tey ni Maggy elle a la capacité mën na diriger mën na jiite ma ne pourquoi pas tey ñu jël ngem ba mag yi mu jiite bu demee dinañu yóbbu ñun jigéen ñëpp mhm. te dinañu sagal mais duñ ko def li may def lu tax muy dem te man dew ma mhm. donc dama koy jéem a faagaagal jéem ko effacer wala def lu tout ba moom mu daanu pour ma mën ko remplacer wala keneen du dem te loolu aussi du du ñu jàppale ñun jigéen ñi mhm. du ñu dimbale il est temps ñu créer benn bloc ñun ñëpp ànd la femme peut diriger elle peut être au devant de la scène ah il est tànk jigéen bi nekk au sommet comme ni nga wax aussi mm. euh, exemple yi nga jël ci femme leader yëpp yi nga fi jël mm. macha allah mun nañu topp si seen i tànk mais aussi am na benn partie boo xam ne góor ñi si seen bopp ñoo ñu dimbaliwul ñun jigéen ñi pour ñu dem on prend l'exemple de Aminata Touré d'après lu mu fi def yëpp ñëpp xam nañ ni elle a toutes les capacités euh, pouvoir yëpp pour diriger même ce pays yor na ko mais fu mu mujj on s'attendait pour la première fois au Sénégal que assemblée nationale ñu am une présidente pour la première mm-hmm. fois mais ñëpp xam nañ fu mu mujj et c'est c'est je pense que c'est mm-hmm. déplorable et bu demoon ay sa tey am na Touré bu nekkoon peut-être présidente à l'Assemblée nationale mm-hmm. munoon na dem ubbil jigéen ñi beneen porte beneen vision mhm. dina dugal ci xelu sénégalais yi tradition bi kii di wax ni mhm. jigéen mën na jiite mhm. mën na def see preuves donc il est ñu bàyyi leen peut-être mun na dem sax ba jigéen jaare fa doon présidente du Sénégal pourquoi pas mm. il n'est pas interdit de rêver quand <laughs> gis nga mais loolu xeex bi daal moo fi nekk dañuy mm. xeexante suñu biir mm. ba pare aussi suñuy góor yi di dañuy xeex di ne la place euh, bu ñu waxee ñu ne émancipation de la femme la parité la parité ci wax ak ci bind la yem ci wax ak ci bind la yam dans la réalité c'est pas ça ndax aussi bu ñu bu ñu demee ba jigéen tamit bu ñu demee ba jox ko cër tamit jox ko poste de responsabilité yenn saa yi day mel ne comme si ñoom dañuy xeex seen bopp ci ci seen image bu ñu nga xamante moom la ñuy reflété loolu peut-être madame madame Thiam lay gën a lay gën a interpellé en tant que communicante dañuy seetlu jigéen bu ñu nekkee parfois assemblée ñoom kii 44 pour cent des sièges donc mm-hmm. mu nekk euh, euh, bin avancé bu am solo mais da ngay seetlu bu ñu fa demee tamit ñi ci ëpp dañ fay nekk comme seetlu nañ ko kii doon wax ay waxu maquillage kii di wax waxu jongama kii di wax waxu leneen est-ce que loolu tamit dina tax nit ñi wóolu leen pour ni ñii kat war nañ leen a euh, gën a yokk doole war nañ leen a gën a cëral. waaw euh, mag yi ma dellu si waat rek ci lu ñuy wax euh, image mhm. euh, man pour man image de marque laay wax sax mhm. du du dëgg la ne jamono yi ñu toll nii mhm. bu njëkk ba dañ daan wax l'habit ne fait pas le moine mais jamono yi ñu toll nii l'habit fait le moine léegi nag à double sens sens visuel bi nii ak sens plus profond li ci li ci nekk sens visuel bi nit mën na sañse mhm. sol lu baax macha allah defaru ba jekk loolu lu mën a nekk la parce que da ngay véhiculer benn image boo xam ne comme assemblée euh, askan wi lañ fa toogal mhm. kenn ku ci nekk boo jógee sa gox dem toogal askan wi say waa gox buñ la gisee nga sañse ba jekk dañuy kontaan ne ah kii di mooy suñu député gox mhm. loolu muy benn mu ne mu war a nekk tamit lu yiw communication ma jigéen yiw daf cee baax yiw bi ci lan ci kàddu yiw bi ci jëmm yiw bi ci comportement ci nooy toogee ci biir nit loolu dafa important dañoo jikkoowoo léegi wax bu ñaaw dañoo jikkoowoo léegi jëf ju ñaaw dañoo jikkoowoo léegi defante te man damay gëm loo xam ne sama yaay daf ma ko daan wax mm-hmm. ay dee leen ànd àndu teranga ay góor dañu ànd àndu teranga di ñaan yàlla muy law ba faw ba biir àjjana mhm. toujours loolu la ma sama yaay daan wax mhm. wax boobu nag dafay nekk cheval de bataille ci ñun mhm. ànd defante teranga mu ne même bu ngeen bokkee ndey ak baay dee leen defante lu baax bu kii xewlee ngeen teral ko bu leen xalaat ne am na ko mais dee leen ko teral mu xam ne yéen a bokk ndey ak baay am na fu ngeen ko teg safoo leen faale leen c'est important système bi ñu jël léegi mooy wax yu Euh, ku nekk boo koy def gis nga réseaux sociaux yi ñu ngi toj àdduna bi. ku nekk yaa ngi làqatu lâchement ci gannaaw réseaux sociaux yi pour di di di di kii nu ñu koy waxatee. yàq nit di dénigrer di yàq nit. Mm. doo ko xamal dara. Mm. da ngay dem fuy ne ci di yëddu waxuma sax yóbbu di yëddu. loo xam ne sa yoon nekku ci bu njëkk da nga daan am sa boo nii nii seen ñuy génne malaat sax nga rocceeku ndànk daw dugg sa biir kër pour malade bi bañ la gis te yow waruloo ko gis ci yenn anam yi léegi nu neex nu neex waaye mel mhm. lu neex waay wax lu neex waaye def ba pare nag di ko tiitaroo parce que gannaaw réseaux sociaux yi ñuy toog ak nit ñi ngay àndal ñi nga xam ne dañ lay joy duñ la wax dëgg mhm. yow léegi ku fi nekk kilifa foog ne mën nga toog place yàlla mhm. te nguuru yàlla rek moo dul jeex fokk nit ñi mm-hmm. sóor loolu mm-hmm. assemblée nationale représentation la <coughs> kuñ fi teg ci nguur gi tamit représentation dafay jeex mm-hmm. nga nga maslaa ak ñi nga nekkal doxal jàmm ak ñi nga nekkal def lu rafet ak ñoom te nga xam li la fi teg liggéey ci jaamu yàlla la bokk nga toog liggéey sa liggéey communication xam nañ dayowu dayowu euh, euh, assemblée bi moom laay wax ma ne liggéey ci jaamu yàlla la bokk ñu xam ko ne ñi leen fa teg ay doomu aadama lañu te yaakaar leen ak wóolu leen moo tax ñu teg leen fa communication bi dafa important mais communication bi di ci kàddu kese. ci jëmm la ci yiw la ci am ay valeur la ci ku la xool maa ngi leen di wax ne bërki démb ñu ngi fi recevoir madame la ministre Ndioro Ndiaye. ma nga woyof toll. sol lu lu lu yiw lu baax. madame la ministre background am bi ñu ko tegee bu ma man maa ko doon introduire bi ma liiree background am ku ko xool siggiwaat nga xool mu yiw di wax wax ju sedd sama papa lii sama yaay lii samay doom lii sama jëkkër di wax fi mu jaar ci carrière politique am ba yegg fi mu bëgg yegg genre exemple yooyu la ñu soxla ci société bi nga xam ne tey jii nekk nga fi ba jóge fi te defoo fi lu ñaaw ko fi tey jii buñ la woowee mën nga ñëw ne jàkk jàkkaarloog peuple bi te amoo dara looy loolu rek moo jara sante yàlla. Mm. loolu mooy communication ma jigéen. loolu jar na jar jar na xeex lu nekk nit doomu aadama xeex lu nekk pour mën a am loolu. jafe na mais mais mais lu mën a nekk la tey jii ban ban ban euh, avantage moo am si ñu cëral euh, jigéen ñi ci ci langue politique xool nañ bëri nañ macha allah ñun ñoo ëpp góor ñi macha tamit mën nañ dajale mën nañu surtout ci wàllu développement transformation leneen na leneen ñu ngi ci mais tey ci wàllu politique dëggantaan ban avantage moo am à ce que eh, ñu gën a cëral euh, jigéen ñi. non avantage yu bari na parce que jigéen moom lu mu somb daan ko. Mm-hmm. moom mooy mooy force am ñoom ñoom góor ñi bu ñu soxla mm-hmm. jigéen ñi la ñuy oo jigéen ñi nag ñu ñoo war a choisir choisir fan lañ ñu soxlaa mm-hmm. ndax man damay xeex mm-hmm. ndax man damay tàccu wala man damay xalaat mm-hmm. wala mobilisation maintenant nag man damay choisir ndax politique ñun dañuy wax nañu ñett la ñu ci jàngal ki nga xam ne dafay def stratégie kooku day day xalaat ak ki nga xam ne mu ngi ci terrain bi action rek lay def ak ki nga xam ne mooy dof bi man nag damay dindi dof ba takk nee jël ñaar yi boole ko mooy ki nga xam ne day xalaat man li may wax dama lay jox benn exemple man dama nekk jigéen si biir góor bi ñuy dem élection législative yi stratégie lan ma joxoon mais lan moo la koy jox sa la ak sa fayda ak sa xam terrain bi mm. tey bañ dëkk si biir góor ñi parce que góor ñi boo nekk ak ñoom da ngay am looy bañ waaw parce que du danga nekk rebelle wala dara kii dafa pànk déedéet du pànk bi man du ma nangu nekk pànk bi du ma nangu nekk dof bi mais nag am na lu may bañ. boo bëggee avancer mën na la yem mu fii cadre politique la ñu seq dañuy dem politique. bu fekkee da bëgg a régler ji sa problème dama régleel ko sa problème man du ma xeexkatu kenn. waaw loolu il faut que ñu siy bàyyi xel. danga wax nag si député yi sa ña nekk à l'assemblée ñoom nag damay wax sunu naw la jigéen yi comme ni ko madame Thiam waxee ñoom ñoo war a xam la leen fa yóbbu te xam na ñoom ñooy yaay Sénégal mhm. kaddu yi jigéenu Sénégal yëpp lañ fa mhm. demee de millions de femmes mhm. ñu war fa dem taxawaay boo xam ne dañ war a défendre la femme sénégalaise da avancement wam dan fan la femme sénégalaise bi di joge ak fan lañ ko war a yóbbu demuñu fa pour sañse di def a mannequinat effectivement demuñu fa pour di def ay ay pistolet wala demuñu fa pour di di di di wañe ay maquillage mhm. donc dañu war a dem ne expérience ak expertise moo ñu yóbbu assemblée mhm. ñu xam ne ñoom ñoo yore ëllëgu Sénégal mhm. waaw bokk na ci li tax ñu gën leen a cëral Seynabou euh, comme ni nga ko waxee rek ñu ne femmes yi nekk assemblée je pense que en tant que ay yaay ay mag ay jigéen ñu nekk ci kër gi war nañ fa mën a représenter toutes les femmes mm-hmm. je dirais même pas les femmes du Sénégal mais les femmes du monde ndaxte ay jigéen lañu mm-hmm. xam nañu ñun jigéen yi lan la ñuy daj ci biir kër yi mm-hmm. xam nañu ñun jigéen yi lan la ñuy jooytu donc war nañ fa nekkee leneen lu dul ay maquillage ay maala daak yére maala daak sañse que leneen war nañ fa mën a nekkal xeexal jigéen yi waxal jigéen yi baa tax ne benn jigéen dootul jooyati fenn ndax am nañu ñu ñu waxal mais nekkee wuñ fa loolu comme li ñu wax seeni image image jigéen yi nekk assemblée c'est autre chose et d'ailleurs en marketing dañoo tàmmali wax ne un bon produit ne se vend pas mhm. mooy jaay boppam mhm. te pourtant ñu nekk foofu loo koo si tudd turam la major partie lu négatif lañ lay tegal mhm. boo demee même si séance plénière yi li si gën a bari doo bariwul li ngay gis ñoom député yu jigéen ñi ñu taxaw plaider wala joxe cause yi nga xamante ne day day refléter image yu jigéenu Sénégal. wala dañuy waxal jigéen ñi ci biir société yi non ñu ngi ci affaire politique. maanaam ñoom yaakaar nañu ne yaakaar nañu ne bu ñu leen yóbbee assemblée rek c'est pour parler de la politique maanaam ki nga xam ne bokkoo ci parti am war nga ko mën a mhm. netti waxal ko lu ñaaw bañal pour ñoom loolu lañ fa nekkee mhm. alors que c'est ça dañ fa nekkal askan wi kàddu askan wi la ñu yor mhm. war nañu mën a tey taxaw ah def si parce que xam nañu lu nekk si kër yi elles sont les mieux placées pour mhm. waxal jigéen ñi mhm. Mhm. kon war nañu mën a xoolaat seeni seeni doxalin xoolaat seeni bopp bu baax parce que ñun jigéen ñi aussi sonn nañ de te bu dee ñoom ñoo war a ab ñoo war a teg première pierre bi pour jàppale jigéen ñi ñun ñi nekk ci suuf aussi ñu mun leen bus booster jigéen ñi mën a dem. effectivement jàppalante la complémentarité moo tax ñu jiital ñeen ñeneen ñi euh, di topp ci ginnaaw ba tey euh, si wàllu solution parce que ku ne problème ne également solution naka nañ war a mën a organiser woo ba gën a jàppale jigéen ngir ñu am ay post de pouvoir mais également pour ñu ko amee ñu mën fa ñu mën fa des. jigéen ñi il faut ñu yee leen mm-hmm. parce que man damay joxe exemple rek si nga xam ne panel bi nga xam ne ubbi nañ ko depuis Kaolack mm-hmm. parce que dañ fa demoon dans le cadre de l' association des adjoints au maire mm-hmm. donc bi ñu demee si cadre euh, si euh, rencontre bi si la ñu gis ne jigéen ñi góor ñi ñëw représenté seeni département ñu ëpp jigéen ñi donc ñu ne leen mais lii qu'est-ce que ça veut dire ça xanaa bi ngeen di ñëw ñëwu leen ah, euh, cadre parité wala déet ñu ne ñoo dañ leen boosté seen département ñu ne noonu maintenant ñun ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne ñoo teew jege si yeneen département il faut que ñu def benn euh, ubbi benn panel di fa waxtaan si suñu biir mm. ba nga xam ne dinañ fa mën a def euh, mise à niveau ñu am na si ñoo xam ne remplir nañ des conseillers parce que man maa ngi sama troisième mandat de conseil municipal mm. bu fekkente ne jàngoo nga am nga loo si for mm. donc ñi nga xam ne dañu ñëw mbees nga jàppale leen si ñi nga xam ne da da euh, nga li nga for si taataan ko ñeneen nga xam ne ñoom am na benn accédé nañ benn expérience si benn niveau comme ñi nga xam ne nekk nañ fa ay formatrice parce que yëpp dox daje la mm-hmm. ñooñu dinañ mën a jàppale ñeneen ñi ak suñu rakk yi suñu doom yi tendre leen la main ba nga xam ne mm-hmm. bis bu ñu demee si conseil municipal ba mm-hmm. dinañ am loo xam ne dinañ ko mën a teg dinañ mën a défendre les idées de leur commune de leur population donc ce qui est valable pour ceux qui sont à l'assemblée ñoom ku si nekk dégg naa ñoom ñu def foofu assemblée bàyyi politique politicienne ba mm. donc loolu noonu ñun def nañ ko ba nga xam ne dañ mooy dama waxoon sànq rek politique ak développement benn paala parce que jigéen ñi si la ñuy mën a dem jàppalante waat ba nga xam ne ña ngay dem di jàppale ñoo lay boostewaat ba nga egg si benn niveau. effectivement mhm. yëf yi euh, euh, jàppalante la ba tey Badam euh, Thiam ci ci wàllum formation bi sànq yaa ngi wax lu am solo mooy formation baax na waaye également suivi tamit daf ci am solo maanaam topp ki nga formé xam ndax la nga ko joxoon ma nga koy jëriñoo. Mm. waaw loolu c'est important euh, ma jigéen mooy li ñuy wax ne euh, defal femmes yi formation effectivement baax na mais bu ñu leen defalee formation te joxuñu leen moyens yu ñu pérenniser seen liggéey bi du am sens. Mm-hmm. parce que comme li may tàmm di wax. Mm-hmm. liggéey ñëpp a ko bëgg parce que liggéey dafay tax nit ki di yëg boppam di am épanouissement di xam ne am nañ amal na am am na njëriñ ci àdduna bi am na njëriñ ci réewam amal na boppam njëriñ. te nit ñi mën nañ ko xoolee respecté ko parce que liggéey ci jaamu yàlla la bokk. Mhm. yooyu formation yooyu ñuy def gis nañu femmes yoo xam ne ñoom ñëpp am nañ ay formation diplômante lañ ku ci nekk boo demee dina la woon def naa fii formation elles ont plusieurs diplômes en main téye ko seen loxo mais parfois dañuy can can bi mooy lan il faut que ñuy tegle ay financement yoo xam ne dañ leen koy jox te ñoom tam bu ñu defee formation ñu am xelu. def formation des formateurs bu ñu leen ko defalee de cette façon là bu ko defee ñoom ñu dem créer ay groupement ay GIE seen koñ jël seen femme koñ yi di liggéey ak ñoom bu ñu liggéeyee ak ñoom formé ñooñu ñu créer seen ay GIE ñi di defar seen ay cere di jaay ñi di defar seen ay saabu di jaay saabu yi ñuy defar ci dëkk bi am na ay association yu nekk de femmes yu nekk Louga mais saabu yu baax yoo xam ne lañuy defar yóbbu saabu yi ñuy jëlee bitim réew di ko sangoo yóbbulu ko dara Mhm. man am naa benn sœur bu xam na sociologue la dafay dem ànd ak femmes yooyu formation mais am na ci ay savon yu mu indi woon may ñu ko man dama jaaxle bi ma ko gisee. ma ne leen lii fii lañ ko defaree mu nekk savon yu wow yu baax yoo xam ne. Mhm. kon suñu jigéen ñi mën nañu liggéey. Mhm. mais il faut que ñu jàppaleen pour ñu mën a pérenniser seen liggéey ñu mën a toog. niveau intellectuel bokkul comme ñu koy waxee nit mun na jàng ba am PhD. nit ki mën na nekk sur le terrain bañ a jàng yegg yegg stade boobu mais mu am formation boo xam ne tey jii expérience boo xam ne tey jii mën na former ay femmes ñii am PhD duñ ko yóbbul dara mm. mais ci kaw lan ñu jàppale leen pour ñu dem mm. loolu c'est extrêmement important jàppalante jàppale jigéen ñi mm-hmm. ngir euh, ñu mën a àgg en un certain niveau te buñ fa àggee tamit ñun ñoom ci seen bopp ñu jéem a góorgóorlu refléter benn image boo xamante ne bu baax lay doon boo xamante ni dina andi kóolute ba tax ñu mën a yàgg ci poste yooyu mais ñu mën a permettre tamit ñeneen góoru jigéen ñi joxaat leen yeneen euh, poste ci tënk euh, mën nañu wax ne loolu nañ fi jot abordé ma leen di fàttali rek ne bu yéen a ngi xool seen émission La Loupe mu leen di defal tënku xibaar yi nga xamante ne moo fi jot a xew ci quinzaine bi jigéen ñi war nañoo euh, góorgóorlu waaye pour ñu mën a góorgóorlu war na itam ñu teg leen ci benn cadre boo xamante ne dañuy am sécurité seen xel day dal pour ñu mën a liggéey seen xel dal pour ñu mën a def leneen ak leneen ci noonu maa ngi bëgg a ñëw ci recrudescence wu euh, violence faite aux femmes maanaam naqaral métital ak rey bi nga xamante ne ñu ngi koy rey euh, jigéen ñi ci réew mi mu nekk loo xamante ne vraiment lu lu métti la Seynabou. waa lu métti. te képp kuy doomu aadama du ma wax sax jigéen danga koy métitlu parce que comme ni ma wax neexul si kenn nga dégg nit rey nañ ko nga xam ko ak nga ñàkk kaa xam mm-hmm. dalay metti parce que dee moom même bu dee dafa naturel sax dafa metti sàkkamtuma bu nekkee ni nit ki dañ koo rey mais loolu yëpp euh, magi je pense que insécurité bi nekk si kër gi kër yi rek moo ko moo ko waral yërmande moo amatul mm-hmm. yërmande moo amatul baale bi moo amatul si kër yi nit nga xamante ne mun da nga koy def dara mu tuuti nga waroon kaa mën a jéggale jëlale moo amatul si kër yi te loolu noonu yëpp yaakaar naa éducation de base bi si la ñu war a war a xoolaat yaay yi ak papa yi ñoo war a yaraat njaboot bi su nekkee ne xale yi dañuy gisuñu kenn lu xalaat la def donc je pense que éducation bi si la ñu war a war a mën a delluwaat xoolaat ndaxte boo seetloo bu baax 2020 à nos jours amul kenn ku ñu rey nga xool ki ko rey xamu ko jabar jëkkër moo rey jabaram xarit moo rey xaritam copain moo rey geelam wala daal du inconnu du inconnu ku rey daal du inconnu mm-hmm. soit da koy xam par force mm-hmm. donc il est ñu xoolaat jikko yi waaye tamit il est ñu dimbali nit yi ñu bàyyi nas-nasal gi ñuy def ci biir kër yi. lu si nekk ñu ne la jarul wax. Mm-hmm. le silence jigéen yaa ngi sonn ci biir kër yi balaa balaa ñuy wax rek ñu exposé. Euh, yow euh, Seynabou sénégalaisement parlant ñun on n'a pas l'habitude de dénoncer. non jamais amuñu habitude lu gën a ndaw mooy le le boutiquier qui te vend quelque chose à un prix plus élevé que la norme jox nañ la numéro vert soo ci wootee doo fay mm-hmm. mais on dénonce pas ñun duñ boole. sañuñu ko ba pare jigéen ñu baaxoowuñu jigéen ñun daf la dara mu metti nga wax mm-hmm. parce que nous sénégalais selon notre culture jigéen dafa war a muñ dafa war a noppi gàtt làmmiñ te pourtant de ñu def la dara nga wax ko ci gàtt làmmiñ la bokk mais pour ñun maanaam dañ ñoo tënk nag ñu ba ñun comme si que amuñu xol war ñoo mën a wax te loolu mooy indi li nga def je prends l'exemple de la femme ki ñu rey euh, Matam mm. ki jëkkëram rey parce qu'elle a demandé le divorce mais dafa njëkk a fay Mm-hmm. parents am ñoo ko jël yóbbaat ko ne ko jigéen dafa muñ mm-hmm. dafa war a muñ ci la demandé divorce ñu rey ko te yaakaaroon ne donc la responsabilité de ses parents est engagée mm-hmm. bu mu ñëwee moom moo doon sëy mënatul aussi nañ ko bàyyi mu dem ñibbi seeta la rek mais parce que tellement la société sénégalaise bëggul gis jigéen bu tas donc les nous femmes on souffre dans nos maisons et il est vraiment temps qu'on en parle la tradition la si ñun jigéen dafa war a muñ jigéen dafa war a toog sëy dafa war a gérer kër et tout mais à un moment mais est-ce que tamit loolu du problème de communication madame Thiam parce que nit ñi est-ce que ñu ngi déglooti est-ce que ñu ngi dégloonte xam nga nit ku ñëw ci yow ne damaa tas dama dama fay nga delloowaat ko ñu ray ko kooku est-ce que boo ko déglu woon dëggantaan moom expliquer na problème bi nga ko delloowaat fi mu jógee woon. en fait on parle le même on se comprend pas. j'ai l'impression man am naa sama benn cousine mauritanienne bu fi ñëw ne ma man ngeen topp nit ki di ko wax muñal muñal muñal da ngay muñ da ngay lii mu ne boo ñëwee dangay mel ni nit ki dañ koy waaja a dugal prison. effectivement mu ne ma ñun comprendre ñu loolu parce que ñun pour ñun sëy bonheur la. Mm-hmm. effectivement boo gisee loo xam nga toog boo gisul loo xam nga dem sa yoon parce que waruloo souffrir ci sëy. Mm-hmm. mu ne man nag mënuma comprendre fii yaay bi day teg doom bi di ko wax ba xale bi di jooy ba yaay ji di jooy ànd ak moom mu ne mu mel ni xale bi. def ko exprès tànn ki ko neex bàyyi kër yaayam a kër papaam dem pour construire vie ak keneen mun ma wan seen mentalité man mënuma ko comprendre man ko lii mooy suñu tradition. boo ñëwee ñu ne la maal bi lii moo ci ne. Mm. ci kaw bonbon nga ci fekk. Mm. waaye li ci suuf yëpp nangam. mun ma pourquoi ñu leen pourquoi ñu leen di mm. wax loolu. mun ma may sëy yow yéen ñaar da ngeen tànnante pour ngeen dem dund seen bonheur pourquoi ñu leen di teg di leen di wax wax yoo xam ne da ngeen koy jooy du force. bu ngeen demee bu mënu leen déggoo ku nekk nga dem seetaat sa beneen yoon loolu lu muy indi mooy ñun suñu dëkk bu nekk nag ak tradition ñun suñu tradition ci affaire wu sëy dafa xaw a métti mm-hmm. dafa xaw a métti parce que li ñuy noppi moo ëpp li ñuy wax li ñu war noppi boobu moo ëpp li ñu wax a wax mm-hmm. parce que nit dina dund loo xam ne ci biir foyer am waru ko wax man damay faral di wax benn exemple benn femme bu ma xamoon xam nga nee nañu ne jigéen bu muñee ci këram muñ muñ muñ bu métti bi rek ay doomam dañuy tekki bu soobee yàlla bu ëllëgee dina kontaan. est-ce que di nga ko fekkee ma ne est-ce que di ko fekkee. donc madame le maire foofu laa jëm si mu am benn jigéen ju ma xamoon histoire métti ma jigéen ji boroom këram daf ko doon méttital façon méttital boo mun a xalaat ci àdduna daf ko doon dund waaye jigéen ji silence ma doon réponse am mm-hmm. du wax dara jigéen ji yàlla may ko mu am ñetti doom yu góor mm-hmm. ak benn doom bu jigéen. léegi benn doom bu jigéen bi dem États-Unis moom rek moom la yàlla suturaal ba mu rëcc parce que benn doom bu góor bi agresseur la. kenn ki moom ki may wax noonu na agresseur la dafay jéggi tali benn bés ci buur Bourguiba bi bus bi moo ko dër fa la yem. ñaareelu doom bu góor bi dafa dem bitim réew nekk fa góoru ñaari tubay. benn doom bi nga xam ne moo ko dese woon muy ko jigéen ki te tekki woon nekkoon États-Unis dafa xëy bés suñu borom teg ko cancer bu fulgurant mu yóbbu ko mu dee ndaw soosu noonu la noppiwaayam noppe noppiwaaleem googu la deewee moo tax suñu dañuy déglu suñu ay psychologue yu mel ne Serigne Mor mbay bàyyi leen di toogee naqar baaxul bàyyi leen di noppi bu ngeen amee fu ngeen waxee ngeen dem waxtaanee fa ko xam ne du leen weer li tax tubaab créé psychologue pour loolu la li ñuy noppi fii mu ëpp te baaxul mm-hmm. bàyyi dina sàkku doomam doomu bàyyi dina sàkku sëram maa ngi leen di wax sànq ne am na jigéen joo xam ne dafa ne doomam bu demal nga dem sàkku sa doomu bàyyi bu jigéen ndax bëgguma mu buñ ko takkee mu ñu fekk fa ndaw yooyu yëpp violence boobu ci biir foyer yi la commencé ñu koy tatagal xale yi xale yi dund ko naan ko géex ko màggaale ko nag foog ne loolu moo war a continuer éducation de base dafa am importance mm-hmm. léeb yi ñu daan def bu njëkk ba ñuy joxe ay exemple diw jàmbaar la woon diw nàngam la woon góorgóorlul am lii dañ ko jël affaire bi transformé ko di wax seen doom diw xolakee ni mu amee jom ni muy teral ndeyam de waaye yaa ngi di façon jom defuloo dara mu sàcc mu mhm. mu mu violé mu dugg ci lu mu warul dugg wala mu toog ci kër gi ñu ni ko yaa fi góor toogal bu fi sa bàyyi nekkulee yaay boroom kër gi du du waxuma raxas ndab du teggi du jàppale kenn du def dara mu màgg dem kër jabaram yóbbu ko yaakaar ne jabaram jaamam la xamul ne daf ko war a uuf daf ko war a boot daf ko war a suñu société bi ci boppam moo mm-hmm. feebar. mais mais jabaram jaamam la loolu c'est ce qui existe au Sénégal. moom moo mais loolu nag tamit ci ñun la de. jabar bi jaamam la ñun parce que ñun ñooy yar góor ñi ñooy ba pare ñun ci suñu biir dañuy xeex. dañuy xeex parce que non ñun dañu xam mm-hmm. soumission lañu xam. Mm-hmm. ñun soumission xamuñu dévouement ak abnégation xam nga dévouement ak abnégation dafa wuteeg jaamu kenn nga war a jaamu mooy ki la sàkk kii nga xam ne danga nekk ak moom da koy jox cër da da koy cëral mu teral la jigéen dañ koy teral muy cëral jëkkëram fu mu toll loolu mooy relation la femme sénégalaise n'a pas maintenant nag la parce que surtout boo nekkee ci famille bu polygame très condamnée parce que la ñaareel ba man mënuloo ko wala li aaw ba man mënuloo ko mm-hmm. léegi góor bu day ñëw nekk benn roi mm-hmm. ku nekk di daw di uti loo xam ne moom moo koy uti pour neexal ko surtout ngay daw ndëg 4 heures du matin 3 heures du matin yow yaay gérer sa doom yaay gérer sa bopp war nga sol VIP war nga sol gérer nga exposé au danger de la vie donc euh, violence yooyu moom nga moom ngay dund ci kër gi muy violence psychologique nga génn nga dund ah. violence physique waaw donc loolu moom moo ñu sonal ñun la femme sénégalaise waaw. Ah, c'est c'est compliqué bu demee ba euh. violence bi aujourd'hui bu ñu ne violence faite aux femmes ça doit être normalement ça doit venir normalement d'un autre genre. mais bu fekkee demee ba violence ci waxum jigéen da koy orchestré ci moromu jigéenam c'est mm-hmm. compliqué. Mm-hmm. mais mais dañu noté dañu noté également qu'il y a benn silence des autorités autour de autour de ça parce que. Euh, gisuñu tweet gisuñu post gisuñu lenn loo xamante ne ci six semaines ci benn mois gisuñ kenn ku def réaction muy autorité yi surtout autorités yi nga xamante ne elles sont des femmes on s'attendait peut-être à plus de de de de compréhension. le mal profond en fait. Euh, dañoo dafa dem ba mujj gi dañoo mujjee banaliser. Mhm. crime yi pour ñun c'est c'est rien quoi maanaam comme lu ñuy wax. seen voilà cravate passe. benn fait divers la benn temps lañ ciy wax bu jàllee jàll na. mais loolu euh, côté côté journaliste yi tamit euh, loolu ça t'interpelle Seynabou parce que journaliste yi tamit bu ñuy titré kii. benn meurtre wala mm-hmm. dañ koy titrer comme si fait divers la déjà deuxième chose mooy dañ koy titrer mel ni comme si dañuy justifier euh, nit ki li mu def ndax am na fu ñu ko teg wala affaire xam nga yenn sa côté titre boobu ngay wax parfois dañuy bëgg euh, maanaam accrocher le lecteur mais lu ñuy titrer noonu moi personnellement je pense que amul certes am na ay ñi nga xamante ne dañuy exagérer comme fait divers la mais est-ce que aussi boo deful noonu info bi du jàll mais est-ce que tamit warul jóge ci fait divers ñëw ci euh, benn stade boo xamante ne dina tax nit ñi gën koo cëral gën koo bàyyi xel parce que dañ mel ne rek boo xoolee benn meurtre koy def fin fait divers am na ñi nga xamante ne sax déplacé wu dem ba affaire gi fu mu amee pour am ay info mais problème bi mooy l'accès à l'information donc da ngay am dara lu lu vague li nga xamante ne day tuuti je te donne exemple man sama koñ am na benn mandikat boo xam ne je m'excuse du terme day dem naa naani ba pare jël doomam de cinq ans sa fillette de cinq ans da koy dóor mujj gi la ma la mamie dafa ne xale bi boo séenaatee sa papa dawal oh. euh, la semaine passée le mercredi dafa seen papa ji muy daw fu muy daw fa la ko papa ji kar fekk dafa màndi woon da kaa yëkkati ba pare sànni ko ci ay xeer dóor ko hmm. xale bi da doon wëcc deret hmm. c'était devant moi dañ ko évacuer si sens si hôpital euh, euh, bu Comico. Mm. Comico Roi Baudouin Roi Baudouin Fann. Fann euh, nu mu tudd dalal jàmm. defal ko scanner ñëwaat mais il a fallu que boobu am ba ñu yaakaar ni xale bi day dee. ku ñu soog dénoncé ci la ko mm. police commissariat comme que ñëw këyir waa ji yóbbu ko ci la papam moom xale bu góor bi soog a porté plainte. pour parce que dafa findaan xale bi il pare que day jël xale bi yenn saa yi bu ko kenn gisul mu yóbbu ko si baari yi hmm. di ko jox mu naan et pourtant moom yaayam a ngi dund papa ngi dund toute sa famille ngi dund ñu koy gis ñu bàyyi ko. ba tey mooy mooy mooy silence boobu may wax xam nga hmm. su fekkul woon ni xale bi tiituñu woon ni day dee. ñu bëgg si dégager seen responsabilité loolu du sa dem parce que mm-hmm. même dañuy euh, ragal a génne affaire ñu ne sa doom day man day def nii day mm-hmm. def lii donc tu vois te pourtant man j'étais journaliste j'étais présente bëggoon naa si lii mais doo am info yi xam nga lii mm-hmm. soo ko waxee rek yem ci fee yi doo am benn suite te pourtant du fekk ni yow journaliste bi yow yaa ko def mais doo am maanaam dañ lay kepp il te donne pas l'accès à l'information l'accès à l'information mm. te pourtant yow peut-être yow li ngay def nii da nga leen bëgg a dimbali sànq wax nga ko tamit boo jugee ci ñoom dem ci euh, autorité bi c'est la même chose c'est la même chose da ngay déplacé wu dem sax au niveau ci commissariat pour xool ndax defeera nañ ko ndax foo mujj mais dañ lay tënk doo am sàkku la tënk noo noo mujjee def li nga am ci ngay joxe nga yem foofu. maanaam ça laisse à l'information qui qui cause ba pare ma ñëwaat ba léegi ci silence bi ma doon wax sànq. silence bi moo nekk di rey ñëpp. lu silence tire au Sénégal dafa nekk di rëy kër yi lu si nekk euh, moo bari da ngay gis dara li nga xamante ne lii war nañ ko mën a wax waxtaanee ko jeex. Mm-hmm. mais yow kenn sañu nit sam dëkkandoo sañ laa def di mal nga dem porté ko plainte. Mm-hmm. tu pa pour mm-hmm. pourquoi ndax boo ko defee. dañuy dañuy def délégation ñaar dañuy def délégation ñëw ñaar si la fooy mujj. dangay ngay gis sax léegi am na benn fee bu xew da ngay dem ci commissariat bi porté plainte. gars yi dañ la jël au sérieux pourquoi dañuy bañ dugg ci vif sujet bi dugg au fond mhm. à la fin nga ñëwaat ànd ak délégué de quartier di ñaan njëkk ak tera pour retirer plainte bi fekk ñoom déjà dugg nañu moo tax léegi boo ñëwee di tig au tag rek ñoom duñ la jël au sérieux mhm. il faut que nga appuyer ko ñu ne la nag ah xam yaa jël sa décision yaa jël sa décision buñ xasee ba dugg si amul recul mais fooy mujj tout le temps mais tamit loolu loolu buñ la ñaanee aussi nga bañ dañ lay def dara ñu ñaan la nga bañ mhm. boo bañee luñ lay wax amul mbokk dafa bon dafa bon hmm. amul kilifa amul cër wala genre ah, amul cër hmm. ñëpp dañ lay mujjee di xoolee bët boobu di la hmm. beddi te pourtant luy metti si yow lay jóge donc euh, maanaam le mal il est profond métti na métti na Seynabou que parce que parce que Sénégal. Mm-hmm. Euh, sunu problème mooy du ñu am personnel bu doy. Mm-hmm. Euh, deew da ngay déposer plainte. Mm-hmm. dossier bi di dem di dem bi dem ba war a dem dugg instruction. mais yow sa bopp sax da ngay sonn da ngay laas si jaabante bi dem bi ak ñëw bi. même police li ngay wax nii pour ñu jël la au sérieux day am problème parce que dañ naan c'est un de famille. après dañ koy régler c'est-à-dire que dañ lay bàyyi en defaat de quelque temps di xool di jouer ci sa mentalité ndax yow li ngay wax ñor na la wala ñoru la mm-hmm. ba nga xam ne bu xamee ne nag maintenant tu es sérieux yow ci li ngay wax ni mm-hmm. ñu doog la ñu doog la jël nga mën a nga mën a déposer sa plainte jox la convocation bi nga yóbbu ko mais dinañ la convoqué ngay mm-hmm. toog foofu en rade yow sa bopp boo xaddee rek da ngay découragé dootoo demaat beneen bi ci topp il faut aussi tribunal yombalal jigéen ñi seen divorce parce que maa doon sëy maa mënoon mënatuma. Mhm. nit ki moo xam la muy dund si biir néegam. Mhm. parce que man j'ai une copine boo xam ne léegi terme boobu dama ko jël si moom bu auto marié bi rombee tey te mën a woy sama ndey mi ngay xaru ci ah <laughs> léegi man tamit dama tàmm léegi ko romb papa su ma toogee nii man eh mu ngay xaru ji <laughs> parce que xale bi li ñuy wax. Euh, euh, trois mois lem gi li si des mbànd mi ñett si kaw may lem gi boo la sa des suuf yëpp kaani la da nga ko war a muñ mais kaani googu ngay muñ ba kañ mm-hmm. nanu yombal jigéen ñi seen divorce de ce fait que mm-hmm. dafay régler wàllu problème xale yi nga xam ne dañuy judd seen seen parents yi di leen sànni wala di rey wala nàngam parce que dossier bi day nekk en instance nekk tribunal ñu may ku góor ki ku góor ki am na droit dem takk jabar mm-hmm. mais ku jigéen ki tant que divorce bi prononcé wuñu ko doo takk jabar boo takk takkee jabar ñu yóbbu la si kaso bi ku góor ki mooy wëlbatu ko ki nga xam ne moom dala suuroon dem na takk jabar ne dala suur mooy la yóbbuwaat tribunal ne da def def bigami léegi nga nekk la risée parce que toujours dañuy revenir à nos traditionnels moom kat dafa am jëkk dafa am ñaari yoon jëkkër moom kat dafa am jëkkër tasul mu am doom ba te su fait que kon li li sama rakk ji wax sànq rek nag jëkkër ji na moom de da doon taxawaalu moo tax ma bàyyi ka nangam te pourtant la ngeen jote du loolu effectivement waaw la ngeen jote du loolu donc nañ yombalal jigéen ñi ku bëgg sëy sëy mooy li waxoon rek code de la bi nañ ko tëggaat tëggaat ko ba tëggaat ko ba nga xam ne ñu jàppale jigéen ñi waaye góor ñi rek ñoo si am gis seen intérêt ñooy takk saa yu ma ne ñooy fase saa yu ko ma ne ba pare nag si fase boobu dañ lay chantage mm-hmm. waaw da ngay dem tribunal déposer pour du ma ko fase foofu laa koy bàyyi dama koy dawloo. Mm-hmm. Ah, mais dama koy dawloo ba loolu du yoon justice justice war na ci war na ci war na ci taxaw. waaye itam autorités yi dañuy seetlu duñ leen faral di dégg ci lu mel nii comme ni ma ko waxee sànq. autorités yi dañu tënxamlu jigéen ñi. dañu tënxamlu parce que ñin fi récemment ñi fi doon victime ñëpp kenn déggu leen si. quelques exceptions d' organismes féminins ñooñu ñu ngi leen siy dégg ñu ngi sensibiliser jigéen ñi ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que ñu ngi def ay atelier di orienter avec les boutiques de droit et autres buñ leen defee lii pour ñu mën a génn si mutisme boobu bàyyi leen nëpp nëppal bi buñ leen defee ñëw leen ngeen déclaré que ñu assister leen. Mhm. à part ñooñu gisuñu benn koo xam ne étatique la mu ngi lay taxaw. Euh, du yoon parce que gisuñu message gisuñu dara. et je pense que jigéen moo gën a néew doole kon bokk na ci ki nga xamante ne moom lañ war a gën a euh, jàppale madame Thiam ci dañuy wax xobbeeku balaa ngay lakkale tey est-ce que solution bi nekkul tamit ci wàllu communication bi wax ngir wax sa soxla boo sonnee nga bàyyi yeneen ak yeneen. ci la ci la les communication moo ëpp le moo ëmb lépp ma jigéen mais li may wax rek ñu dellu siwaat ci valeur yi mm-hmm. parce que gis nga valeur yu nga xam ne suñu maam yi ñoo ko fi bàyyi woon jomb mm-hmm. am fit am fulla am fayda am kersa am yar am teggin loolu buñ ci delluwaatee yaakaar naa ne pour ñun loolu mooy suñu xoddee ko balaa ñoo lakkale mm-hmm. ku jomb ruus xam nga rus ak jomb ni ko sama benn papa di waxee bokkul boo rusee yéen bu ngeen toogee sama kanam duma ko def mm-hmm. waaye boo bu ma jombee yàlla laay xool mm-hmm. jomb naa ko def sama àdduna duma ko mos def yooyu valeur bu ko nit amee jomb naa sama loxo jël sama loxo teg ko ci jigéen mm-hmm. loolu bu ñu jëlee valeur yooyu dina disparaître su ma xalaatee ne tey jii kii sama rakk bugguma ko ko def lu mel nii tey jii sama rakk bu ko jëkkëram defee lu ko naqare mun naa dem jël paaka pour reyante ak moom kon duma def loolu rakku jàmbur sama papa tey man mii di papa jàmbur bu ma xoolee ne sama doom bugguma ku ko def lii doomi jàmboo def loolu sama doom kon dafa am loo xam ne dañ koy xool ci suñu valeurs yi njëkk yi ñu delloo si waat suñu kaw te ñu bañ a jël doom di fal bii mooy góor bii mooy jigéen fal mhm. doom baaxul doom yemale leen ñoom ñëpp mhm. wanal sa doom ne ko ëllëg du añ du reer mais lu mat a sédd la mhm. tey maak sa yaay ñoo fi nekk ëllëg mën nga demal affronté jël sa bopp àdduna boo demee affronté ji àdduna yaa xam fu lay fekk boo amee yërmande yërmande comme ni mu ko waxee boo ko amee fu sa jabar jógee nga jàppale ko da ngay gis jigéen ju ëmb ba diis surtout nitu àll yi. ñu gën a mhm. sonn. Mhm. dinañu bojj dinañu raxas dinañ dem tool yi dinañ def lu nekk ba keroog li ci ëpp sax ñi ci ëpp seen seen biir nekk la ñu amee doom. dañu ne tekk ñoom toog ñoom ñooy chef de famille ñu leen di defal lépp loolu yëpp daf fi war a jóge mm. parce que yërmande ku ko am ndax ñoom dañuy jàng alxuraan ba guux alxuraan mm. xam nañ li alxuraan ak beneen diine wax ci ni ñu war a toppatoowee jigéen ba wee jigéen man damay toog di wax mës ngeen gis kuy teral jabaram wala kuy toppatoo jigéen di dellu gannaaw benn exemple laa bëgg ñu won ma ko ci ku gis mu jël jabaram ak ko ci kaw wala muy toppatoo jigéen uuf ay rakkam uuf jigéen toujours ci kaw day mel ni day dafay dafay mel ni biddéew bu fenk loolu mm-hmm. yàlla moo koy def loolu ci àdduna la bokk mm-hmm. donc communication bi yëpp man pour loolu la mm-hmm. te ñu bàyyi xale yi ñuy wax ci biir kër yi ak toog bu sa doom defee erreur comme bu njëkk ba koñ ba yëpp daan yar mhm. wala quartier ba yëpp set gox gi yëpp daan yar mhm. xale waaye ba ñu commencé di wax ne taabal ji ci ñëpp la métti mhm. boo laalee sama doom ñuy yéeg di wàcc biir tribunal ca la lépp yàqu kenn amul intérêt yàq doomu kenn ku nekk na nga téye sa doom comme doomu jàmm communication bi gis nga violence bi euh, lii nabu wax la le mal est profond dafa nekk ci biir te noppi gi moo jaaduwul. Mhm. boo waxee ñu ne nit du weer boppam ak nit du nangam. Mhm. Eh, ay expression yoo xam ne bu njëkk. góob góob bu ñu weerul du faju aussi dëgg yàlla. góom nu muy fajoo nu muy fajoo donc communication bi man daal pour man communication bi ci loolu la mm-hmm. ku nekk jàppee boppam comme sa morom loo bëggul mm-hmm. ñu def ko sa rakk bul dóor doomu jàmbur mm-hmm. su mënatul nekk ak ndaw si bul et puis ngañ ñi tamit comme li ñu wax defee nga noo xam ne tey jii yaa ngi chantage ku jigéen ki amuloo ci droit man pour man góor bu demee ba ne la bëggatuma goreel ba ne ko baax baax balaa wax ji sax boobu ma ko waxee noonu ndax dama war a wodd wax ji waaye kumbay bañ sàmbay rasu ku la ne buggatuma nga ne ko alhamdulilah. <laughs> waaye buggatuma par force tey jii comme buggatuloo rek dama lay rey fan nga ko teg. rey yàlla rek mu am droit def ko mhm. mais li may wax lii indi lii yëpp euh, ma jigéen impunité duñu duñu duñu kii mhm. duñu ñu xam nuñ koy waxee duñu dem ba mu sos daal dañuy tàmbali ndax bu doon ko nit ñi ni ko diine ji waxee ku rey ñu rey la mhm. gën a baax borom bi ñu sàkk nga xam ne moo ko wax ci suñu diine yëpp ku rey dañ laa war a rey ñu indi fi loi bu bees boo xam ne ku rey dañ laa war a tegal la di la yéegal tribunal di la wàcce bu bu bu bu kii jotee nuñ koy waxatee 4 avril jotee ñu relaxé waat ñëpp kuñ ci relaxé balaa muy def un mois nga reyaat keneen ñu teg ko fan États-Unis ngi nii amuñu diine amuñu lii amuñu ñi ci ëpp sax seen ñun ñoo leen ëpp diine foofu mais ku rey ñu rey la am na dëkk yoo bu buñ ko fi commencé woon balaa muy def cinq ans nga gis cinq ans une année une année rek une année d'expérience buñ ko expérimenté woon une année jeex na expérimenté que une ah. année kenn dootul rey. Ah. kenn dootul rey dañu war a justice pénale lañ fi war a teg. Mhm. parce que justice euh, populaire bi ñuy bañ mu am kon justice pénale bi na jël. na bu yoon jëlul ah, ay yoon jëlul responsabilité am par force day am. xool par exemple nga jël sa benn rakk wala sa nga gis ñu violé ko ku ko violé nekk door. wala ñu mhm. métital ko jël ko dóor ko nga xam ne mhm. diw moo ko def te mu ngi ci biir di vacances préoccupation. bu doon man sax dama koy def yow da nga koy def. te surtout foofu aussi suñu problème mooy lijjanti bi. nit ki dalay lay nga yóbbu ko justice mu dem 3 mois la fay def fekk lam fa lam li mu la def daye boo waroon na fa tëdd fukki at. at mu lay rombaat di la kokkali. Mm-hmm. donc loolu dafay pousser nit ki mu révolté wu. yow yoon moo war a yoon moo war a def liggéeyam autorité yi tamit euh, jël yëf yi en main di di di di ñaaw di ñaawlu di di euh, di di fësal tamit que ni ñu ngi jàppale jigéen ñi également ñu leen di jàppale parce que jàppale yemul rek ci ay kàddu mais également dafay bokk ci ay jëf ci prévention ci former xale yi à ce que ñu euh, naka nañu war a procéder en cas de viol en cas de leneen ak leneen saa yu dara amee naka nañ war a procéder pour défendre seen bokk donc bokk na ci loo xamante ne dafay euh, dooleel jigéen ñi euh, ci noonu ñu jàll ci ci beneen thème moo nekk euh, bi nga xamante ne moom mooy mujj ci émission bi mu nekk audition Ousmane Sonko na bu démb yaa ngi woon ca palais de la justice naka la mbir yi demee comparé ak mars bi nga xamante ne moo jàll. Je pense que ça s'est très bien passé. amul woon euh, benn incident lépp jàll na si yoon. Mm-hmm. Euh, police bi certes génnoon na nit ñi aussi tiitoon nañu trop. ñu bari ñu ngi mm-hmm. doon yaakaar ne Ousmane Sonko dañ koy arrêté tellement sécurité bi drone yi euh, est-ce que dafa bari woon. Mm-hmm. mais c'était peut-être pour anticiper ëmët di fi amoon des mois de mars passé. maanaam jàngat bi ñuy def de man personnellement jàngat bi ma def mooy que li fi xewoon mois de mars deux mille na ñàkk. en fait parce que boo xoolee mars 2021 li fi xew yëpp mu ngi dooree woon ci Ousmane Sonko mi waroon dem ñu déglu ko. mu jël itinéraire am ne yoon bii lay jaar takk dare ne ko doo fi jaar yoon biñ la tracé fa ngay jaar. mu bañ ko mu jigi peuple bi génn bu génnee ñu ne dafa def trouble à l'ordre public ñi ko yër ko dugal ci ci fagon yóbbu ko section de recherche donc ci la affaire yi xewee xaw ma ndax yéen a ngi koy fàttali. bu baax démb. yoon boobu mu bëggoon jaar mars 2021 yoon boobu la jaar mm-hmm. police bi da ko escorté mm-hmm. midi lañ ko convoqué 1h30 mu ngi mu ngi tribunal de Dakar. mu mel ni itam nit ñi dañoo dañoo déglu la mu wax. dañoo déglu la mu wax ndax nee na leen wax leen génn bu kenn ñëw. voilà ñëpp toog nañ seen i kër yi teewlu euh, information donc côté boobu aussi. Mm. Bayonne moo defoon appel bi. Mm. peut-être aussi euh, mun naa wax ni prise de conscience am na foofu côté Sonko. Mm. il a été vraiment conscient que impact bu mu am. ci jeunesse bi mm-hmm. doole bu mu am comprendre na ko bu baax waaye tamit euh, je pense que lii mars passé. ça veut dire que ñooñu aussi bu ñu ko teguloon forcing bu mu doon wax ne dañ ko doon def am na am na droit wax ko ndax démb d'après lu ñu gis forcing boobu mu doon wax am na ndax yoon bu mu bëggoon jaar fa la jaar te mm. pourtant escorté na ko dara xewul mm. donc mars passé xam nga nit woo nga ko mm. ñëwal nangam fu ko neex ngay ñëw ma ngay ñëw bu doon ñëwul sax su ma neexee tey bi may invité plateau su ma neexee naa jógee yëmbal jaar parcelle daal mm-hmm. l'essentiel heure bi mu ma jox na ma fekk fii mais fu ma ne woon te mais munoo exiger nit ki da ngay ñëw ba pare nekk wan ko fu muy jaar. Mhm. non non mënul nekk. Mhm. donc forcing boobu mu doon wax. Mhm. am na si am na si dëgg. forcing boobu noonu tey ñu seetlu ne justice moo moo moo moo dal ci kawam. parce dañ koo jëlee ji yóbbu ko section de recherche et tout. donc euh, moom bu koy euh, bu koy tënk. day teg baaraamu tuuma nguur gi. donc est-ce que jotul tamit ñu ñu séparer li nga xamante ne moo di trois pouvoirs yi parce que bu demee ba mën a def pression ci kaw justice justice mën a def pression ci kaw beneen nit tamit. doy na waar donc pression bi moom euh, c'est partout et je pense que waxuma la du gaaw de. Mm. ay sa Afrique gii. Mm. séparer pouvoir yooyu. li madame Thiam wax la yaakaaruma mu mu gaaw en fait yaakaaruma mu gaaw. mais mais mais c'est c'est une chose qui est possible euh, madame le maire moom moom maanu la wax ci ci ci affaire bi parce que <laughs> neutralité moo ko ko permettre on comprend bien mais juste sa benn euh, intervention. par rapport à waaw par rapport à à l'affaire Sonko Adji Sarr. Mm. donc man damay wax ne. comme dama fi ñëwee casquette des adjointes au maire. Mhm. boo xam ne euh, parti politique yëpp ñoo ngi fa. Mhm. donc te affaire bi. dafa nekk politico judiciaire mhm. donc moo tax mënuma si sori ndax euh, te Ousmane Sonko mhm. dañu bokk coalition Yewwi Askan bi nga xam ne man ma nekk taxaw Dakar taxaw mhm. Sénégal sama président Khalifa Ababacar Sall jiitu ko moo tax du ma si mën a sori beneen bi si topp mooy euh, euh, aji jigéen la te boo ne madame la maire entendement bi yaay la nit di njëkk a dégg balaa balaa balaa maire donc doom la rakk la yaay la aussi donc ñun li ñuy ñaan rek au niveau du Sénégal ah Ousmane et à Adji aussi que ñu dem ñu vi vider dossier bi une bonne fois parce que dossier bi bu nekk ci loxo justice rek nañ ko vider te vider bi na jaar ci yoon ba nga xam ne Sénégal dina ci génn avec grandeur mm-hmm. mu nekk Sénégal bu paix ak paisible ba nga xam ne ni ko doon dundee ñu continuer di ko dundee ba ba ñoo leader ñu bañ a faillir à leur mission mm-hmm. man loolu laa amal et par rapport ak séparation pouvoir yi euh, séparation des des pouvoirs moom ni ko waxee fii rek mooy muy Sénégal muy Afrique c'est tellement difficile même boo demee en Europe sax dina di nga sentir fois benn influence mhm. Mhm. waaw dañuy dem ba euh, nit ki wàcc wala leen ñu génn waat dossier bi oowaat que devant la justice donc au Sénégal ah waxuma de waxuma du am de mais du léegi gëmaguma ko dina mhm. jafe c'est cette séparation des pouvoirs parce que y telement tellement de dossiers à vider mais ba léegi kenn laalu ko effectivement et on constate que ci yeneen dëkk yi dañuy euh, faral di def toog ba mu yàgg sax ñu jëlaat yeneen dossier mm-hmm. tegaat ko ci kaw table càmbaraat mm-hmm. ko ngir ñi nga xam ne tooñoon nañ leen mm-hmm. ñu mën leen jox dëgg kon euh, comme li nga wax rek yàlla na ci jàmm topp Sénégal am ci euh, am ci jàmm madame Thiam ba tey ci ci kaawu audition wu Sonko ñu mel ni dañu seetlu Sénégalais dañoo jël en en maturité diggante boobu ak léegi donc 14 morts ba dépassé bii yoon mu mel ne dara xewul ci dëkk bi naka naka nga gisee loolu Euh, ma jigéen man dama gis ne sénégalais yi euh, dafa mel dañu am une prise de conscience mhm. loo xam ne positivement ñu gis ne euh, tamit dafa am loo xam ne dafa war ak lu warul xaw ma nag ndax daf lii nga xam ne mooy seen leader génn wax ak ñoom impacté na ci mais man gis naa ci daal benn maturité maanaam daal benn xel mu yokku mhm. ci Euh, victimes yi amoon quatorze euh, ci quatorze victimes yi amoon euh, mois de mars passé donc man loolu mu nekk lu may saluer nga xam ne leader bi nga xam ne moom la ñu convoqué wane na ne citoyen la dafa am solo mm-hmm. citoyen buñ ko wooyee ci yoon dafa war a wuyu ji mm-hmm. bu demee fële nag lañ fay régler moom ak justice mm-hmm. ñu régler ko mais citoyen buñ ko wooyee dafa war a wuyu ndax loolu dafay calmer le jeu comme on leneen li ma ci teg mooy que ñi nga xam ne ñoo fi nekk moo xam Sonko la moo xam ñi nekk ci pouvoir moo xam ñi nekk ci opposition bi mhm. ñu sóor rekk li ciy jiitu loolu waa nguur gee ko moom mooy dëkku démocratie lañu mhm. nekk mhm. nekkuñu ci réew moo xam ne roi bi moo jiitu am ay sujet wu dëkku démocratie lañu nekk te peuple bii ñoo tànn xool ki leen neex ñu tànn ko teg ko fi ñi ñu tànn nag nañu sóor ne peuple bi duñu ay bàyyi ma Mm-hmm. peuple bi ñoo leen fi tax a mm-hmm. te sonn nañu mm-hmm. torop coono bari na ci foyer yi nit ñi xiif nañu nit ñi jaaxle nañu nit ñi xamatuñu fu ñuy jublu Sénégal métti na torop nañu suur loolu am dépassement par rapport ñu gaawantu clore ce dossier là mmh, qui est pendant devant la justice depuis xam nga combien de temps mmh. ñu teg ko de côté ñu indil ñu ay solution yoo xam ne dina jàppale askan wi population bi ñu xam surtout jeunesse bi mmh. macha allah macha allah macha allah Sénégal bari na ay jeunes bëri na ay jeunes lool jeunes yoo xam ne ils sont désœuvrés nañu créer ay structures yoo xam ne dañ ciy dugal jeunes yi toujours damay faral di wax ni modèle ASP boobu suñ ko jëloon créer ko ci biir koñ yi ne jeunes yi ci koñ bi yëpp chaque fin du mois am nga cent mille francs salaire mm-hmm. agresseur dootul amati mm-hmm, euh, euh, kii ni ñu koy waxatee oisiveté dootul amati mm-hmm. yaay ju nekk dana génn ci coonom parce que kër gu nekk boo ci joxee cent mille francs xale yëpp ñu ñu ñu enrôlé leen buñ leen mënul woon delloo delloowaat armée ñu utal leen genre bu mel noonu nga xam ne ñoom la ñuy yee ña doon agressé ñooy xeex agresseur yi ci koñ bi kuy agressé ti donc yi euh, njiit yi nañu am conscience ñi fi nekk dañoo soxla ku leen jiite. jàppale leen jàppale boo xam ne mooy jëme réew mi kanam. dañoo xam ne réewum démocratie la. lii fi nekk nañ ko lijjanti mu féete boor benn yoon. te ñu gëstu askan wi ndax askan wi sonn loolu rek rek amoon lu may wax. lu gën a important dossier bi en lu gën a important dossier bi et également ñi dañuy faral di def focus bu amee boo xamante ne dafa am euh, dayo bu toll nii ba dañuy daal di fàtte rek li nga xamante ne moom moo gën a am solo comme ni nga ko waxee mooy emploi wu jeune formation jeunes yi ak yeneen ak yeneen yoo xamante mu ngi nekk ay urgence di xaar euh, ci euh, pays boo xamante dafa nekk en voie de développement lépp urgence donc euh, war nañ ci gën a farlu thème boobu noonu mooy tënk suñu jotaay tay bi may amoon contentement bu baax baax di leen dalal Seynabou jërëjëf sonal naa la lool lool <laughs> ak couverture yi démb déeg yëpp teewul tey ñëw nga merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal bu baax ma gis invitation bi macha allah am na solo bu baax di remercier aussi ñi ma bokk na trop xanaa aussi di remercier les téléspectateurs de Woman First TV rek merci beaucoup. merci Seynabou euh, madame le maire tamit euh, merci beaucoup ci euh, ñëw bi ngeen ñëw xam naa ne jot amul donc maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di la bàyyi nga wax euh, sa mot de la fin. waaw di la remercier nag yi di euh, sama sœur yi ak grande bi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di remercier les technicien mm-hmm. di nuyu aussi les téléspectateurs di envoyer un coucou à mon président Khalifa Ababacar Sall. Mm-hmm. di wax ne di leen di wax bonne continuation parce mm-hmm. woman first euh, loo xam ne dañ ko jëgleel femmes yi mhm. aussi euh, maa ngi koy doog gis une première mhm. euh, télé femmes yi mhm. donc di wax ne di la ñaanal une grande promotion mu nekk dem ba gën a nekk ay ubbeeku def ay chaînes yi chaînes yi chaînes di wax macha allah. merci continuation. merci beaucoup madame Thiam peut-être un dernier mot. voilà merci juste gërëm ñëpp ñi ma bokkal plateau madame le maire ak Nabou. plaisir ma xamante ak ñoom fii ci mm. plateau bi di la gërëm aussi ci ni nga présenté émission bi di ci kontaan lool. di bëgg ci li ma ñëw ci Women First TV fépp fu ñu sargal jigéen man bu ma fa wooyee damay sawar. parce que man la femme la mère du monde. Mm-hmm. vraiment di gërëm sa technicien yi parce que lii tam lu xaw a jafe la. Mm-hmm. ah di sant téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan amuñu seen fay. di wax encore une fois Sénégal ci kaw ci kanam dëkk bu war a am jàmm la dëkku jàmm lay am ñu ngi koy ñaanal di ñaan góor ñi tamit ñu yërëm jigéen ñi ndax jigéen ñi tamit buñ leen yërëm gërëmee rek fi ñu bëgg a àgg dinañ fa àgg ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal yépp ñépp jàmm di wax euh, suñu borom yàlla na aar seen liggéey bi ngeen egg fu kawee seen jox ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam vraiment merci encore merci ñoo leen di jaajëfal di leen gërëm bu baax si wuyu si bi ngeen wuyu si téléspectateur de la WFM TV tey lii mooy euh, tënk seen i xibaaru quinzaine ci seen euh, émission La ma leen di jox dig daje beneen yoon ci yeneen itam di leen sant di leen gërëm ci teewlu bi